2004 laata muy nekk li moonu jëwriñ loole nekk nag lu doy waar ñeel kon réew mii na muy doxee rawatina ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi nekkee na ko ndóol gi itam ñu gis ko ci réew mi moom Macky Sall nag am ay biens yoo xam ni nag mënuñu wax ni kon nan rek lañ koy waxee nit ñi ndax lu doy waar la mam biram wàcc mu mel ni kon nag moom a ngay xam ne rek ñeel kon alal bi nga xam ni Macky Sall am na ko ndax mu ni foofee ca Padoua am na fa nag lu toll ci terrain boo xam ni 2069 mètres carrés la ca Almadina ak appartement la fa am ca Houston foofee ca États-Unis mu am fa rek terrain boo xam ni euh, superficie bi 300 mètres carrés la ak kër goo xam ni itam villa bi 200 mètres carrés la carré la ba ci euh, Sali Portudal ak foofee itam ca sud. bu Saly am na itam rek terrain boo xam ni kenn tabaxagu ko lu tollu ci euh, mille deux cent mètres carrés ca Fatick ak itamit rek lu toll ci neuf hectares euh, ca Sébikotane mu mel ni kon loolu yëpp kon njiitu réew mi fi nekkoon moo ko yore moom ki Sall loolu nag nekk lu doy waar ndax ma ngay àdduwaat dolli ci nag di wax ni am na beneen villa boo xam ni ma nga ca Mermoz toll ci six cent quatre-vingt-deux mètres carrés euh, société immobilière bi nga xam ni kon moom rek moo ko yore woon ñeel itam rek kon tey ci fanweer ak juróom yi woto yoo xam ni moom rek moo ko uh, daal di uh, moom ginnaaw rek parti bi mu nekkoon muy xamle itam kon nii moom jiitu réew mi ginnaaw rek juróom-ñeenti fukk ak ñeenti ci weer yi nga xam ni ah, def na ko rek ci ah, ci Abdoulaye Wade mi fi nekkoon jot na rek fayeeku lu toll ci fukki milliards ci suñuy koppar weer bi jot ñu ni kon moomee nag jëm ci milliards yooyu yi nga xam ni am na ko wala sax mu yokku ñeel kon alal bi nga xam ni Macky Sall mi ngi ko yoree.